naan peut-être ancien président euh, ñoom euh, dina am lu ñu leen di jox chaque mois euh, mais ancien ministre ak ministre limu mu ministre yëpp yu ñu yu ñu am fii depuis Senghor ba léegi loolu rek koppar gu takku la bu xajoon bu waroon a xaj xëy na ci suñu ay hôpitaux yeeg ñoom seen. président bi pour man ancien président yi sax ñuy jox ay salaire yenn salaires yi pour man c'est exagéré. Hmm. Ah parce que koo xamante ci sa magistère dañ jox ay fonds spéciaux. toll ci huit milliards par an. Mm-hmm. nga koy gérer te kenn laaju la. Cour des comptes li ñuy li ñuy li ñuy finance publique di gëstu finance publique yëpp seen seen seen seen kii seen prérogative àggul ci ñu càmbar nan la ñuy gérer suñuy fonds publics. Mm-hmm. suñuy fonds spéciaux yooyu. ñuy mm-hmm. dénk président bi. yoon moo leen mayul ñu yegg foofu. donc huit milliards yi Macky Sall yi doon am chaque année bu ko neexoon jël huit milliards yëpp def ci poosam ni pat. cest kon nekk na fi. plus de huit ans di am an. Mm-hmm. yoo xamante ni kenn xamul fan la ko doon def. Mm-hmm. kenn xam ko kenn xamul lan la ci doon def peut-être sax mi ngi ko doon utiliser pour xeex état du Sénégal wala mi ngi ko doon utiliser pour jox ci ay ennemis état du Sénégal. parce que mm-hmm. am na benn instant ñu soulevé fi problème mu douze millions d'euros yu mu jox Marine Le Pen. ba ñu jàppoon ci l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré. boobu ba léegi ñu ngi koy ñu ngi xool nan la mbir yooyu demee leeragul. donc suñu fonds spéciaux yooyu am na benn journaliste français bu wax keroog ni Macky Sall da ci doon jox ay homme politique français yaa ngi dégg ay homme politique français mu yëkkati suñu xaalis boo xamante ni état budget bi ñoo ko voté jox ko ko moom mu koy war koo gérer certes nu ngi ko neexe mais mu jël ko di ko jox ay yeneen homme politique yoo xamante ne amul ñu Sénégal benn njëriñ est-ce que vois mm-hmm. donc pour man di leen jox salaire ñoom ñooñu ancien président yi yenn salaire yi pour man c'est Parce que euh, ils ont eu à bénéficier de privilèges énormes durant leur magistère. koo xam ne sa magistère chaque année danga nga doon nangam nangam milliards lañ la doon jox. Euh, te kenn xamul foo ko doon dugal pour man nga wàcc ci nguur gi ñuy dolli encore di la fayaat cinq millions par par par mois euh, attribuer la garde du corps attribuer le véhicule. Mm-hmm. Euh, pour man loolu yëpp. te mm-hmm. ci contribuable sénégalais bi moo koy fay. Mm-hmm. pour man loolu c'est loolu c'est trop asantuma laak nag yow. balaa mhm. ngay dem euh, nga signé benn décret nga ni. Mhm. ku fi nekkoon ministre. Euh, léegi mën ngaa toog sa kër wala tëdd sa kër. Mhm. chaque mois ñu viré le un million huit cent wala ñu viré le deux millions huit cent. loolu na demee quoi chaque fekkee mos ngaa doon ministre rek demal tëdd muy dox. jartul ngay jartul ngay liggéey chaque mois ñu viré le euh, sa salaire nga nga nga nga nga lekk donc tant que nag gisuñu décret bi ba xam décret bi lu mu wund parce que démb maa koy fàttali article bi ñu nga xamante ni suñu confrère yi Sénégal bind ko. Euh, euh, leerul trop parce que munoo xam décret bi lan la lan la lan la wund. wax nañu rek mhm. ni dañu dañu dañu abrogé benn décret boo xamante ni euh, da doon permettre à anciens ministres yi ñu jot seen salaire. Mhm. mais waxuñu définiruñu ci ci ci yan cadre. le mhm. décret boobu di exécuté wu mais en attendant de voir le décret comme. comme ni mhm. ñu gisee yeneen décret yi nga xamante ni jaaroon nañ fi mhm. dañuy wax ni loolu rek bu fekkee c'est vérifié c'est c'est c'est une autre trahison comme ni ma ko waxee démb mhm. jaar nañu haute trahison Macky Sall parce que moom li ñu ko mën a toppee haute trahison sax dafa bari. jar na vraiment ñu waat ko fii ci réew mi. Euh, yóbbu ko ci yoon. Euh, parce que xaalisu sénégalais yi la quand même. Euh, sénégalais yi ñoo sonn di fay ay impôts ñu leen di dagg ay taxes. ñu dajale ko ba mu bari. Euh, def ko suñu budget euh, donc mu doon natt boo xamante yaa sénégalais bu ci nekk ak li nga néew néew néew néew doole participer nga ci parce que boo demee mhm. ne serait-ce que ci boutique bi di jënd benn tàngal tàngal boobu dañ koo taxé mhm. taxe mhm. eh, participer nga ci budget bi nga xamante moom mooy doxal réew mi léegi nag bu fekkee budget boobu kenn ki ñu fi tegoon pour mu sàmm ko daf ko doon caxat-caxate wala da doon participer ci entreprise caxat-caxate bi euh, je pense que fi wàccee war dañ ko war dañ ko mën a woo Euh, devant la justice déglu ko déglu ko ci loolu. Mhm. mais mhm. Euh, papa Pape Sané mi ngi koy wax léegi doo comprendre yenn euh, jëf yi nga xamante nit kooku doon na ko jëf bi mu nekkee fii ci nguur gi ak laata muy dem lan moo tax mu ko doon jëf. lan mhm. moo la ko sénégalais yi def te pourtant sénégalais yi ils ont tout donné jàng nga école génn école dem université lépp ci ci état bi moo la doon jox bourse et tout. nga pare war a liggéey nekk nga directeur. Petrosen nekk nga fi ministre de l' énergie. nekk nga fi mm-hmm. ministre de l' nekk nga fi ministre nekk nga président mm-hmm. nga fi président de la république maire mm-hmm. daal di lépp lu ndomba tànk sénégalais yi tappal nañ la ko léegi nag yow amoon dara def lu dul vraiment ah, ak nii nga tolloon nii xam nga ni nii <laughs> eh, baron day ruube quoi xam nga ni nii moom moo sol lu vert ah, li de Euh, donc euh, boo demee ba tey jii. am naa yaakaar ne yow kon di nga kii tuuti. man sax bëgguma yenn yaram yi bëgguma yaram yooyu mais euh, boo demee ba quitté pouvoir bi ñu gis la en bon point bi nga am ak vraiment ni nga mel nga waroon a sant sénégalais yi waroon a baas koñ ba koñ. ma xoolaat photo bi baro ma xoolaat photo bi. nga waroon a baas koñ ba koñ xool li nga sant. non ah léegi nii day sant Sénégalais yi léegi léegi moom. moom moo lu vert li moom laa wax léegi de boo ko ah. gisee c'est le dafa waroon a baas koñ ba koñ. sant Sénégalais yi yàlla kenn demul. waaw mu ngoog gis nga ko de ah, macha allah sant yàlla sant yi la waroon a def balaa muy dem mais defu ko. lépp loo xamante ni dafa jëm ci mhm. wàllu caxat-caxatee wala saboté suñu suñu suñu suñu république bi mhm. euh, mu sóobu ci carrément donc mhm. kooku vraiment il ne mérite plus rien euh, de cette euh, de cette de cette république muñ ba jox ay salaire xaw ma 5 millions. salaire 5 millions Pape Sané euh, gis nañ euh, ki nga xam ne ni mën nañ jàpp ne mooy chef de l'opposition bi ah muy euh, Amadou Ba ñibbisi na démb ah am na loo xam ne ayooba moom lay bañ a dégg am na ñu ne. ah déet bañ ma ko dégg damaa bëgg woon may image yi pour. <laughs> am na ne. am nañu ne nit ñi accueillir nañ ko donc te euh, donc euh, muy euh, ay questions yu ñuy posé wu ci li nga xam ne nii mooy avenir politique gu Ba avenir politique ki nga xam ne nii mën nañ jàpp ne mooy chef de l'opposition parce que am na 35 pour cent ci présidentielle bi ñu ngi gis sax ku ci mel ni Waly Diouf Bodian démb ci passation de service bi muy mu ngiy wax sax bay tooñ ba naan ñun opposition wu milliardaire la ñuy jàkkaarloo ba si yàgg mu ne non du wax sax ndax ko après mel ni nekkoon kon xëy na mën nañu am yaakaar que ni